kii mbokk yi di rafetloon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ak si yéen kon ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës fii ci ndakaaru fréquence rajo kenn dootu ko fi joxeti directeur général RTP moom moo ko xamle ci euh, jëmi boppam jàpp ni euh, mbir mi dafa dem ba saturé faaw ñu indi ci kon ab euh, nettoie toilettage defaraat ko xoolit loo xamante ni kon noonu la ñu war a mën a def ba ñu bari mën a jot ci wàllu rajo yooyu ak rajo numérique terrestre mu xëy indi yooyu leeral la ci séminaire fonctionnaire bu ñu doon def des na ca dikk euh, ca kanam tuuti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari liggéeykat yu nekkoon diplôme euh, ñoom jamono ji ba tey ñu ngi ci ay tolof tolof euh, la ñuy laaj nag moo di nañu leen jëlaat jox leen seen i ndàmpaay ñu naqarlu kër ga na mu taxawee di recruter personnel bu ñu jàpp ni qualifié wul ñu xëy xëy am ndaje kon ca daluk UTS fële ca boori pikin diwaanu ko cene ba rawatina ña ni ñoom ñoo fay bay ca diwaanu ci diirub eh, dendub ñeenti village ñoom ñoo taxaw daal di xam le ni eh, suuf sa nañu ko fay caxat-caxatee d'accorduñu ca maire bu Thiénaba eh, la ñu ca joxoñ baaraam jàpp ni juróom benn téeméer ci hectare da ko jox benn promoteur privé loole nag nammuñu ko seetaan Cheikh Anta dina ci indi ay leeral la jàngalekat yi ubbi l'école tey jii kon di xaarandi tout tànk yi juróom-ñeenti fan ci weer wi waxtu woo xamante ni coow li ca yavu selim jeexaw jotagul ah, démb yow Sélémé saa yi dinaay leeral jàpp ni benn saafara waxtu wi kon amagul te duñu nangu administration ah, provisoire ba waajuru ndongo yi taxaw ñoom di sàkku takk der yee jóge fa ndax dañuy traumatiser ah, seen i gone coow loolu yàggu bi télécole bi dinañu ci am gan ca kanam tuuti Oumar Fall lay wuyoo mooy secrétaire exécutif au conseil du dialogue euh, social moom la ñu fas yéene waxtaanal monsieur Fall ñu lay nuyu di rafetlu teewaay bi. maa ngi nuyu di si émission seen kii bi journal bi. mi ngoog mooy gan gi ci kanam tuuti dinañu amal waxtaan wi ponk yaa ngoog mbokk yi nis tuut ñu yaatal ko. dellu nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média tàmbalee ko ak euh, benn euh, waay ju am juróom-benn fukki at ak lu tekk xel ma nag euh, neexul ma nga dekkee woon ca Géejawaay quartier Cheikh Wade foofee nag lañu jàpp ni daal dañu ko rek dóor ay jaas yi loolu ma nga xew boori 3 heures du matin koñ boobee nag bu ñu ko duppee du fii ci Ndakaaru bu ñu ko tuddee waaye fële la ca boori Tambacounda gar ferroviaire ba nekkee foofu kon la defee jëf ju ñaaw jooju benn biéteur bu bis euh, moom it oto yooyu mag yooyu euh, daat nañu koy euh, faatit ca Bakel xewee loola tax nag askan wa jamono ji am lool ak ci tànge ci li nga xamante ni moom moo di seen karange saaw Omar Gueye du ñàkk suñu yeneen i xibaar mu gën ci indi ay leeral fréquence rajo yi ak nañu koy joxe jàpp nañu ni waxtu wi bu ñu koy xool ci bande bi seere dëgg la def loola tax nag fii ci Ndakaaru moom xalaat su fi di fi joxewaat benn fréquence directeur général ARTP ci boppam moom moo wax lu ni mel war nañ ko it gën a defaraat ak radio numérique euh, terrestre waaye it euh, mbir yi ni mu seede ñu xool yoo xamante ni jàpp nañu ni euh, war na caa mën a deñ ñu daal di ko ci simpi ba mu set cib séminaire bu ñu jagleeloon procédure yi ak ni ñuy gérer fréquence yi la ko xamle Fatou Bintou Conté Mohamed Dieng ñoo ñuy nettali ndaje mi ñu jàpp ni ci wàllum joxe fréquence rajo fii ci Sénégal région de Dakar moom fees na ba pare njiitum ARTP mu xam ne li nu men tey jii benn ndaje lañu ñu amaloon mu jëm ci wàllum gestion fréquence fii ci Sénégal. am na ñu lu toll nii li ñu joxe gum lu toll nii 457 fréquence FM boo jëlee 457 fréquence FM yi euh, mu ngi toll ci 276 rajo 276 rajo yi. deux cent vingt deux rajo yi mooy rajo communautaire yi euh, quarante huit yi mooy rajo commercial yi nga xam ne moom moo am euh, six yi mooy rajo yi nga xam ne moom mooy rajo international loolu nag ci réew dafa laaj ñu taxaw organiser wu parce que tey fi may wax ak yéen région de Dakar amatul fréquence FM bu ñu mën a joxe mu jàpp ne benn solution rek jamono ji moom moo fi am mu di ñu jëm ci li nga xam ne moom moo di rajo numérique terrestre faaw ñu jëm ca. manière mun nañ jàll ci li nga xam ne moom mooy la rajo numérique terrestre mooy rajo bi nga xam ne rajo numérique la rajo numérique lay lay nekk loolu nag lu muy wund mooy daf ñuy permettre xam nga ci wàllu numérique mun nga jël benn fréquence nga partagé ko ñu bëree bëri or ci analogique. utilisateur bu nekk fréquence am lay am parce que fréquence bu ñu la ko joxee il faut nga xam ñaar benn bi moomuloo ko donc ça veut dire deux choses su fekkente ne jëfandiwuloo ko da nga koy dañ koy retirer la deuxième chose mooy munoo ko rétrocéder c'est-à-dire munoo céder fréquence munoo munoo ko am ba pare jël jox ko keneen. gérer fréquence nag moom doon na lu serré jamono ji moo tax nag faaw mu laaj ci li nga xam ne moom moo di contrôle bu takku ba tax ni képp koo xam ne da nga yokk sa puissance rajo ay daan dana tegu sa kaw. dans le cadre la du contrôle euh, dañuy contrôler ñi nga xam ne parfois sax ci contrôle dañuy koy signaler ñi nga xam ne dañuy dérégler seen émetteur ba tax muy baave ci beneen rajo mu indi ay jafe-jafe loolu buñ ko yëgee. dañuy def suñuy mesure dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaari way jëfandikoo yi ku nekk liñ la daggal ci wàllu fréquence pour que nga bañ a empiété ci beneen fréquence bi. beneen daan boo xam ne jamono ji danañ ko teg ci ndodd ñi nga xam ne ñoom ñoo di utiliser fréquence yi te duñu respecter procédures yi jëm na sax ba li ñuy wax tëj sa rajo. yaakaar naa ne suba euh, dinañ am benn mission buy dem ci région yi pour. sele benn rajo boo xam ne dafa utiliser ay te amul autorisation loolu nag dafa nekk activité boo xam ne activité de tous les jours la ñii diplôme lañ daan xëyee toll nañ ci téeméer ak euh, ñaar fukk ak euh, juróom-ñaari euh, liggéeykat coow la jeexagul seen digg ak seen direction lañ leen dàqee loolee la ñuy naqarlu ña ngay laajaat seen réintégration ñu dugalaat leen waaye it jox leen ay ndàmpaay ñu gis ni dañu leen daq ba noppi jël personnel non qualifié ngir gën a fësal seen ñaxtu xëy nañu daje ci ak waaye taskatu xibaar yi Ousmane Bodian moom mooy délégué personnel bu diplôme ci micro Salis Sow lañ koy dégloo. juge de référé moom moo taxaw wax mu ne diplôme dafa war a intégré délégué ku nekk sa poste travail te su ko defulee dina fay bës bu nekk soixante quinze mille francs par bës ak si chaque tra si ak si liggéeykat bu nekk ñu toog juróom benn weer diplôme ne dee du def lu justice boobu wax mais pour activité bu mu waxoon ni day day disul pour promoteur économique gars yi ñu fay liggéey DIFAM dafa dafa recruter ay nit ñoo xam ne amuñu benn xam-xam seen xam-xam màccul si récupération bu tey ak fabrication de bu tey loolu nag bu ñu ko xoolee danger bu mag la ci fabrique de bouteille de gaz. si loolu ñuy dànkaf di woo association de consommateurs ministre du commerce intérieur ak le ministre du commerce voire même ñu interpellé tamit le ministre du du daaw wax nañu président de la république. suñu secretaire général Aliou Ndiaye le premier mai saisir na ko xamal ko dossier diplôme ba léegi nag amuñ amuñu si tontu mais li ñuy wax rek mooy ñun ñun dinañ wàcc si tali bi famille yi ak suñuy doom ak suñuy jarbaat ñu wàcc manifester suñu désapprobation parce que dossier boo gañee tribunal ñu bugg ko lawaj ñun loolu ànduñu si dàkkuruñ si Ousmane Bodian kon nag Sakkour Ndoye secrétaire général métallurgie euh, dan xëyee ca DIPROM bokk ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar liggéeykat yi am jafe-jafe ñoo doon addu ci micro Salif Sow caméra as Malick Diop Thiénaba ca département euh, bu Thiès baykat yi nekkee ca ñeenti village ñoom nag euh, ñoo amal toogaanub ñaxtu coowal suuf dal bu ñu moytuwul dana ñu ko faam ndax ña ngay joxoñ baaraam maire ba Talla Diagne ni moom moo jël toll ci juróom benn téeméeri hectare jox Euh, ba daal euh, jafe-jafe indi na leen ko ñoom ña daan jëfandikoo suuf sa Cheikh Anta Diop euh, la terre yi ñoo faagoon ñoom ñëpp dikkoon jóge woon ci dëkk dëkkaan yu nekk fii ci commune bu ba di kër Demba ant Mbayeen kër Xaar Jéey ak Demoo Jéey nee nañ lu toll ci juróom benn téeméeri hectare ci seeni suuf yu doon baye de la maire ab Thiénaba jël jox ko ab promoteur privé askan wi ñoom ñëpp fippu suuf si ñoo ko moom kenn du ko jël suuf si ñoo ko moom kenn du ko jël conseil municipal bi yëguñu tinuñu ñun juróom fukki hectare sax mësuñu ko délibéré fii ci Thiénaba depuis le conseil le conseil est man amul benn conseil boo xamante ni mas naa koo raté. waaye ñun dañoo jékki-jékki rek mu yëkkati benn këyit nii ni délibération bi def nañ ko ba pare yéen partenaires yi ñetti téeméeri hectares moom ngeen doon laaj waaye juróom-benn téeméeri hectares fekk ngeen ñu defal leen 600 hectares c'est cinq kilomètres de long et 1 kilomètre de large loolu bu ñu ko defee ci ñeenti dëkk yi kon ñoom fu ñuy bayati kon mënunoo fab suñu suuf di ko foqarñee noonu di ko jox ay promoteur ñoom ñu ñëw di ko dëkkee ak a jël autoroute Ila tubaab bi fi mu duggee ci Thiénaba ba fi mu génne dugg ci biir tubaatu lépp lépp buñ ko seetaanee dinañ ko dinañ ko joxe ay partenaires ak ay soi-disant des partenaires. coordonnateur régional bu forum civil fi ci diwaanu cees dikk na ci bërëb bi doon jàppale askan wi. su doon sax suuf soo xam ne bayuñ ko mais ñoom ci la ñuy ci la ñuy bay ci la ñuy torox ci la ñuy sutura maire bi warul am benn sañ-sañu ñëw. jël def délibération fi su dee délibération fictive ni ko waxee no la amee c'est faux et usage de faux kooku procureur de la république war na autosaisiru mhm. pour tegaat maire bi ci yoon mhm. su dee aussi jaarul fa mu war a jaar nañ fexe ba mu jaar fa war a jaar su fekkee ni jaar na fa mu war a jaar leer nañ ñëpp d'accord ci ñëpp ci gis seen bopp loolu daal mooy suñu taxawaay. maire Thiénaba di Talla Diagne bi ñu ko oowee biral na ne am na ab délibération bu ñu def ci ñeent fukki conseil ak juróom-benn yi ñeent fukki ak ñeent yépp woote nañu d'accord ci projet bi moom sax nee na ci fan yi di ñëw dina woote gën a indi leeral ci mbir mi. njàng mi ci la ñuy wax école eh, ubbi na ci yi nga xamante ni ñoom ñoo di eh, jàngalekat yi ci àllarba tey ji gannaaw ñetti weeru eh, nuppalu gone yi ñu leen di xaarandi ñoom ci daara yi juróom-ñeenti fan ci weer wi waxtu woo xamante ni yow Selim foofe coow la moom jeex gu fa ndax teg nañ fa lii di kon administration provisoire loolee tukkee ci ndaje mi nga xamante ni Serigne Mbaye Thiam seqoon na ko ak ay jàngalekat ak ñenn ñu nekkee foofee ca école ba ci administration ba loolee kon kon moom la ñu ca daal di tënk ni njàng mi it war na faa door ci lu yàggatul dara Fatou Bintou Konté Mohamed Dia. coow li nga xam ne moom moo amoon ci wàllum tëju école yi nga xam ne moom moo di Yawu Selim jamono ji jàpp nañu ne mi ngi xaw a dal ndax tey ci mardi bile enseignant yi ki nga xam ne moom moo di ministre éducation nationale jotoon na leen recevoir bañ ca génnee ci boobee ndaje nag ñi ngi jàpp ne seen xel dal na. ñu waamee ndaje ak ministre bi waxtaan nañu recevoir nañu suñu xel donc weccoon nañ ay xalaat parents yi liñ leen di rassurer mooy ñun jàngale mooy suñu objectif mooy suñu suñu bëgg-bëgg danañ jàngale incha allah luñ doon def danañ def lu ko raw ba nga xamante ni si li ñu xam ci yaabu selim mu gën a jëm kanam. administration école yi tamit ñëwoon nu ñu daje ki nga xam ne moom moo di ministre éducation nationale tey ñaan ci ni mu gën a gaawee ñu ubbi ubbiwaat école yi nga xam ne moom mooy yaabu selim. ay directeur d'école lañu ay euh, pro ay euh, directeur des études ay censeurs donc ñun nous sommes des pédagogues notre préoccupation c'est le déroulement des cours qui son interrompus nous lui avons demandé laaj nañ ko pour que fii ak fan yu néew ñu mën a delluwaat ci sunuy classe sunuy élèves mën a ñëw. nangul na leen na ko ci nee na dafay daje ak conseil d'administration bi am na ay préalable préalable yooyu nag ñun du ñun ñoo koy décider. am na ñoo dañoo am conseil d'administration bu nekk suñ kaw ñooyu ministre bi dina leen recevoir fan yii bu dul suba di gannaaw suba donc dina wax ak ñoom bu ñu euh, yaakaar naa ne bu ñu dajee te ñëpp bokk bëgg-bëgg. Mm. maanaam ubbite école bi lu mu gën a gaaw. yaakaar naa ni amatul problème. moom Serigne Mbaye Thiam di ministre éducation nationale ma ngay dalal xel yi di xamal ne ak système bi nga xam ne moom la ñu fas yéene taxawal moo di administration provisoire cours yi dinañ commencé waat fee nga xam ne moom moo di collège yawu Sirim yi léegi. lii permettre école yi ñu ubbi ko ci diir bu gaaw boo xam ne bii duñ fa nekk di càmbar ay kayit mooy ministère éducation nationale état du Sénégal parce que su ma nee ministère éducation nationale dama koy wax ci turu état Sénégal. Mm-hmm. état Sénégal moo ñu uuf ñëpp. lu dul mbirum jàng mi mooy sauvegarder intérêt sénégalais li koy yombal mooy état bi jël école yi def administration provisoire te yaakaar nañ ne nit ki du dem di óolu keneen bañ a óolu nguuram bañ a óolu état su jëlee administration provisoire bi rapidement en ce moment-là d'ici peut-être le temps de finir les consultations rek école mi ngi tijji le 9 peut-être suñ ci teree ñaari fan wala ñetti fan cours yi mën nañoo démarrer. ci anam boobu leneen li ñuy lijjanti nag pour seet kayit yi mat na wala matul su boobaa ñu matal ko ci diggante boobu. moom Serigne Mbaye Thiam sax di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di employé te ñu woon ko seetit que yi li nga xam ne moom moo di seen liggéey jamono ji danañ ko préserver ak tamit li nga xam ne moom moo di modèle éducatif bi am ci école bi la ñu gën koo renforcer dara du fi soppeeku. ca ndaje ma parents d'élèves yi ña nga foon yëkkati nañu seen euh, kaddu euh, Mamadou Kébé ma jiite seen association moom moo ca wax euh, takk der ya nga xamante ni daal ñoom la teg ca buntu l'école ba la ñu bëgg ñu simpi leen fa ba mu set. mais dañu am ñun quelques inquiétudes ñun parents d'élèves yi parce que tey xale yi bëgg nañ ko redémarrer ñu mu gën a gaawee parce que le temps bi ñuy toog daf leen di perturber jaxase leen. mais aussi présence force de sécurité yi dañoo bëgg ministre de l'éducation nekk suñu porte-parole près de son collègue du ministre de l'intérieur pour que force de sécurité yooyu mun a jógee ko ci école yi parce que day tiital xale yi day jaaxal parents d'élèves yi également boobee dossier joxoon ji ñu dénk biir euh, réew mi euh, moom it daal dina ca yàddu xam ne ne administration provisoire bi euh, ñu dogal moom moo di solution bi gën ngir njàng mi mën a dooraat foofu ci Yavu Selim Mali Nguy njaay la ñuy déglu ci micro Cheikh Tidiane John. xam nga bu fekkoon dañ ne dañuy tëj rek mën na ne tëj nañ waaye kenn ku nekk dem seeti say say doom nga xool foog jëm waaye déedéet dañ ne tëj nañ waaye état Sénégal ubbeeku na pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo doon. dañoo nekk euh, ci école bi ñi ko fi indi euh, naka la ñu mën a fexe ba njàngale bi parce que loolu mooy finalité bi njàngale ba fa nekkoon mën a continuer donc loolu ci la ministre de l' éducation nationale nekk démb waxtaan ak parents d'élèves yi ñaari possibilité amoon na benn possibilité à un moment waxoon nañ ko ne Maarif mën na jël parce que Maarif fondation euh, boo xam ne bii état Turquie moo ko def mënoon am également beneen possibilité boo xam ne bii jàpp naa sax que ne ci lañ gën a jëm mooy fexe ba juboo ak euh, administrateur actuel yi ak parents d'élèves yi pour que état du Sénégal nekk administrateur provisoire. parce que bu boobaa xale yi dañ mën a continuer jàng provisoire lañ wax le temps que ñu trouver solution parce que école ubbi na ba pare. provisoire googee nag euh, yow Sélé Messa bëgg ko dégg démb ci communiqué xamle nañu ni amagul benn solution ngir régler coow li foofu ñu naqarlu ñu ni euh, seen matériel bi état bëgg euh, saisir loolu yëpp jàpp nañu ni ak jalgati la ñoom ci gan fas yéene de suite ci loolu Oumar Fall secrétaire exécutif au conseil du dialogue social monsieur Falman dellu nuyu la. salaamaaleykum. Ah, mu ngi noonu kon coow li ci yow Selim waaye laataa ñoo dellusiwaat ci boobee dossier. Mhm. école bi jàngalekat yi ah, tàmbali tey jii di xaarandi ah, ndongo yi. Mhm. le 9 octobre xel dal na ci atum ren. waaw je pense que damay d' abord euh, tey la ubbite ubbite classe pour enseignants yi. donc suba la journée également de l' donc di di leen di leen ndokkeel parce que enseignant lu am njariñ la donc réew yi fi ñu rawante mooy si éducation. donc euh, nguur gu ne réew mu ne war na en tout cas jagleel enseignants yi benn importance bu important benn importance donc pour ñëw si sa kii bi donc euh, pour li ñu kii au conseil du dialogue social justement pour anticiper pour bañ coow am donc ñu ngi rafetlu daaw coow amul woon toog nañu année boo xam ne année boo xam ne amul woon benn perturbation loolu moo tax euh, du 26 au 29 septembre owoon nañ enseignants yi o également ministères yi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy impliqué aussi prise en charge seen i revendication justement pour saytu li nga xam ne enseignants yi seetu nañ ko ne seen accords yi réglé kii euh, jël nañu ko en charge donc euh, ñun en tout cas ñu ngi rafet ñu ngi en tout cas am nañ xel bu dal si affaire si kii bi parce que waxtaan yi fa tëral donc euh, tëjuwul donc ñaari parties ouverte nañ donc amul buntu buñ tëj donc euh, xalaat nañ ne daal bu ñu continuer di waxtaan si kuréel yi nga xam ne teg nañ ko kuréelu Haut Conseil du dialogue social kuréel yi nga xam ne également ministère des finances tëral na ko moom aussi nee na dina rencontrer régulièrement enseignants yi xalaat nañ ne daal bon année bi dina dina dina kii normalement. maintenant nag bu ñàkk nag mais ñàkkul ne Haut Conseil euh, dégg ngeen dànkaafu jàngalekat yi ak préavis yi ñu ne xaat nañ ko dugal te njàng mi sax école sax béegul. waaw dégg nañ ko mais en fait déposé guñu préavis dañuy yëglu dañuy yëglu c'est normal comme école ubbi. comme ñoom toog nañu at donc demuñu grève te am na seen i revendication seen i préoccupation yoo xam ne ñoom posé nañ ko ba léegi jëlaguñ ko en charge donc c'est normal que ñoom ñu yëglu mais at moomu ñoom dañ ne gaa ñi dañ ci ci gannaaw amoon na yeneen i ñaxtu yu leen soxal ñu mm-hmm. regle ko bañ a xaaraat euh, année bi écoulé carrément ñu leen di seetaan mu mu fas yéene tàmbali ci ay euh, coowaak yu ni mel mais bu ñu dégg ministre de l'éducation ni mu waxee ni euh, indemnité logement ba bokkul ci budget 2018 bi est-ce que dina yombal yëf yi parce que moom it mi ngi wax xaat yoon wi nga xamante ni moom la nar a jël waaw peut-être que mën nañu wax ne ni mu ko waxee peut du yombal kii bi mais loi de finance bi kenn voté gu ko kon voté gu tey am na yeneen i pexe yoo xam ne nguur gi mën na ko tëral même bu fekkee dañu voté budget bi mën nañ dem ba si biir année bi ñu voté une loi de finance rectificative donc li gën a important mais duñ ko ci dugal est-ce que euh, ñi nga xamante ni ñoom la jàkkaar lool mu di enseignants yi duñu am benn euh, xeetu dëgëral bu ñu def ñoom tam def pression ci état pour ñu tenir en compte euh, seen revendication yooyu. waaw mais maintenant nag pression pression moom jarul jarul jarul jarul jiital parce que même boo defee pression fi ngay mujjee. mooy toog ci table waxtaan. donc donc te point boobu ñu posé problème point la boo xam ne enseignants yi dañ ko posé mu ngi seen plateforme état bi engagé wu na woon def benn étude. mais am na yeneen pàcc si euh, gouver si kii bi si fonctionnaire yoo xam ne ñoom également ñu ngi xaar affaire boobu xoolee santé ñoom aussi c'est une préoccupation am na yeneen syndicat fonctionnaire yoo xam ne donc également posé nañu ko donc problème la boo xam ne koor yi muy laal moo bari moo tax du yomb mais dañu war a toog waxtaan nguur gi dafa war a toog o te comme mu moo jëloon engagement ne du yokk benn salaire tant que deful étude tant que bi yembul ba ñu xam lan la ñuy fan la ñuy teg seen tànk donc bu ñu waxtaan waxtaanee dañ trouver solution par rapport à cette question. Mm-hmm. beneen coow euh, Oumar Fall yaa ngi koy dégg mu di mbiru Yerushalim. waaw boobaak léegi euh, mi ngi wéy euh, mel ni gars ñi ne nañ yéen nag o conseil moom da ngeen cee boole loon tekk tekkaaral xëy na début début bi da ngeen di bañ a jël position wala dara ngeen seetaan gars ñi di dem ba heure bii ñu tàmbal leen ci dégg lu lu tax doxalin boobu. en fait tooguñu si tekk tekkaaral boo xoolee ñun sunu sunu sunu gis-gis si enseignement wax naa ko si tàmbali. Euh, élève bi moo nekk au centre moom la ñu war a teg au centre donc acteurs yi aussi bien gouvernement bi que euh, parents d'élèves yi également ñi nga xam ne ñooy gérer école yi li ñu war a xool mooy que élèves yi ñoo nekk au centre ñoo nekk au centre de la question donc war nañ fexe ba trouver solution boo xam ne au moins nañ permettre xale yi nga xam ne ñu ngi doon jàng foofu continuer jàng maintenant bu ñu waxtaanee c'est sûr que dinañ trouver foo xam dinañ trouver solution boo xam ne ñetti pàcc partie yi nga xam ne ñoo ko séq dinañ ko trouver solution donc bu fekk bu ñu xooleeloo loolu. mais ça fait yéen concrètement lan ngeen ci def ci ci dossier bi parce que boobaak léegi ñu tàmbaliwaat ba école bu ubbi fekkaat ko fi. Euh, te ñu am kuréel yoo xamante ne war na nañu mën a régler coow li concrètement lan ngeen si def yéen. waaw pour le moment ñu on kenn saisir ñu si question boobu parce que en réalité pour repréciser ñun suñu mission mission au conseil du dialogue social mooy fexe ba fépp foo xam ne nit day liggéey ñu fexe ba ki koy liggéeyloo euh, ak xam yi mu ko ameel mu jox ko ko. sans pour autant que mu am coow si entreprise bi donc maintenant boo xoolee euh, question bi question bi li mu posé mooy peut-être au niveau nguur gi dafa jàpp ne école école boobu en tout cas amul autorisation amul euh, en tout cas nekkul en règle par rapport ak li Sénégal tëral donc ñi nga xam ne ñooy gérer école bi donc ñoom nee ñoom ñu ngi seen yoon donc foofu boo xoolee du problème boo xam ne entre kuy liggéey la ak kuñ ku ñuy liggéey mais am na ñu ci fay liggéey ñoo xamante ne buñ ko tëjee xëy na dinañ koo yëg. am ñu nekk euh, ci environnement bi di ci évoluer. waaw ñooñu ñëpp dina impacté ci ñoom. waaw dina impacté moom mais pour le moment posé gul parce que ba léegi amul benn parti bu wax ne en tout cas euh, école bi dañ koy tëj mais li ñuy xool ba léegi ñoom ñu boo xoolee aussi bien nguur gi boo xoolee décision yi ñu jël dernièrement li ñuy xool mooy fexe ba en tout cas école bi continuer ubbi maintenant kan moo koy gérer ak kan moo ko nan lañ su sous quelle loolu la ñuy xool mais au moins aussi bien les partis yëpp ñu ngi jàpp ne école en bi war na continuer fonction. saisir leen mais est-ce auto saisir pour que mu solution rapidement ministre bi mi ngi wax ñu doon yaakaar ne dina am porte tey euh, yoonu ko juboo mais boo déggee Kavou euh, waxtaan ak gaañ pour que euh, très rapidement bu ñu dajee ci wërngalu taabal ñu d'accord sur des bu ko jaree moom moom dañ dañ si dugg parce que ñun dañuy ah, saisir mais fi nii am na ñaar déjà ñaari ministres yu si yu si ministre de l'intérieur li mu wax donc nguur gi waxaat na ne dina def lépp pour que école bi continuer fonctionner donc li des moom bu fekkee ne en tout cas nit ñi li ñu jàpp li ñu bëgg rek mooy élèves yi continuer jàng loolu en principe war nañ war nañu am trouver une solution mhm. donc donc li ñu war a def daal mooy fexe ba ñi fa doon jàngee continuer fa jànga bu ñu fa continuer jàngale kon ñi fay jàngale également du ñu am problème parce que boobaa ñoom nañ jàngal élèves yi euh, ci wàllu euh, diggante liggéeykat ak njaatigéem ne ngeen yéen ci lool ngeen di euh, gën a yëngu yéen a ngi gis waa diplôme bari na ñoo xamante ne tey ji ñi ngi jàmbatam ay coow yu ñu am ak seen entreprise gannaaw bi xëy na kër gi nekkee ci jafe-jafe wala yenn saay ñu teg ci taabal ji jafe pour mën a dàq ñenn ñi tey ci wàllu xayma bu ngeen ko doon xool naka ngeen euh, gisee environnement social bi waxtu wi. waaw bu ñu ko xoolee na bu ñu ko misaalee de manière générale euh, ñaari at yi euh, coow li mu ngi ëpp en tout cas yi mu ngi ëpp au niveau du secteur public donc boo xoolee au niveau du secteur privé coow li bariwul noonu tellement par rapport ak yeneen année yi donc loolu nag li ko indi mooy li ma wax sànq sa à dire que nguur gi quelquefois dafay nekk arbitre parce que am na ay kuréel yoo xam ne comme inspection du travail yoo xam ne ñoom dañuy fexe ba fépp koo xam ne nit day liggéey ñu veiller contrôler xool ndax condition de travail mais fii en fait nguur gi fii employeur la nguur gi problème yi mu am moom max li ñi muy liggéey loolu la donc foofu day xaw a jafe parce que mm-hmm. boobaa day liy posé wu mooy est-ce que ressources yi ñu yoree doy na pour que nguur gi mën a satisfaire donc les revendications ñi nga xam ne moom lay liggéeyloo loolu moo tax kuréel bu mel ni ñun au conseil du dialogue su nga xam ne si biir au conseil dafa am ñoo xam dañuy représenter gouvernement bi am ñoo xam dañuy représenter travailleurs yi am ñoo xam ne dañuy représenter employeurs yi donc kuréel la boo xam ne man na neutre am na am neutralité boo xam ne dina mën a def ay médiation pour fexe trouver des solution yoo xam ne dina. est-ce que concrètement ça médiation yi souvent du ngeen am ay difficulté parce que wax ngeen ko ñu ci bari coow yi état la état dafa am doole xëy na euh, c'est vrai que médiation na ci am solo mais yenn saa itam bu bëggee dëgëral dafay jafe lan moo gën a doon yéen seen jafe-jafe tey ji pour que mission bi ñu leen dénk ngeen exécuter ko comme il faut. waaw jafe-jafe bi euh, mën nañ ko jàpp si d'abord si ñàkk formation c'est-à-dire que am na ñaari entreprise yoo xam ne intervenir nañ fa euh, si année bi passée. donc ñoom dañu nekkoon ci ay jafe-jafe yu bari ba direction bi ak travailleurs yi ak délégués yi nekkoon ci ay problème bi ñu saisiree donc ñu def médiation bi mais bi ñu xoolee en fait li leen réeroo li nga xam ñu réeroo dafa amoon une mauvaise compréhension par rapport ak li yoon wax donc foofu li ñu mujjee def mooy dañu mujjee renforcer capacité donc aussi bien membre direction bi que délégué du personnel parce que fois mën nañu réeroo si lii yoon wax. donc loolu day baax également ñu renforcer capacité donc ñi nga xam ne ñooy nekk si entreprise yi donc euh, loolu moom c'est un point important beneen point bi également mooy euh, fexe ba bu ñu bu ñuy jël engagement donc ñu fexe ba engagement yi également. ñu mm-hmm. respecté ko et pour ñu respecter foog nga déggoo ak ki nga xam ne amel nga ko dara ngeen déggoo si. nan ngeen di fexe ba li nga ko amel nga jox ko ko mais nga planifier ko dans un dans un délai. parce que très rapidement communication bi tam war leen ko yokk gars yi xam ne xëy na yéen a ngi fi yenn problème yi buñ leen ci saisir comme ni nga ko wax buñ saisir ñu buñ leen ci saisir xëy na euh, saafara am ci. waaw loolu moom loolu moom du am loolu moom am nañ sax benn commission communication presse boo xam ne loolu mooy rôle am donc fexe ba fépp foo xam ne liggéeykat ne fa ak liggéeyloo ay nit. ñu fexe ba ñu wax leen lan mooy rôle au conseil du dialogue social. Mhm. donc képp bu fekkee ne ñoom dañoo am coow au lieu ñuy dem di. dem di tribunal wala ñuy jàppante ñu saisir ñu ñu essayer di rapprocher parti yi donc fexe ba trouver solution boo xam ne entreprise bi du si am problème travail également du si am problème. gërëm la bu baax Oumar Fall secrétaire exécutif au conseil du dialogue euh, social moom lañ doon dalal tey muy gan gi ci xibaaru digg wi ci wàllu xibaar yi dem ba ñaaxeen fële la ca Tiwaawan ak ubbi tey jàng tey euh, ñu yër fa mu toll mel na ni foofe nag euh, ñettiyaat a ngi ñu nga ko fay euh, jëfee fan la ñuy jaar Cheikh Anta Diop Latir Sey ñoo fa doxantoo. bu tey jàng tey daanaka lu mat ñetti at a ngi nii dëkk bii di ñaaxeen nekk ci département bu Tivaouane ñu ngi koy wëyal nee nañ sax ren ji moom la ñu fas yéene def ba tax na ñu amaloon daje bu yaatu ci diggante conseil municipaux yi parents d'élèves yi comité de gestion yi ak maire bi ngir xool yan pexe la ñuy jël kii du maire ñaaxeen nee na ren ji balaa ñeenti fan ci weer wi daanaka école yëpp daañu leen jox ay jumtukaay ngir ñu mën a ubbi bés bi ñu ko àppee. juróom-ñaari école yi nekk ñaaxeen yëpp 1472 élèves yëpp. CI ba CM2 ñu ne amul benn élève buy jënd fourniture xanaa sa saak booy defal sa doom ay fourniture lépp lu mu woo pour jàngi commune bi moo koy jënd lëkkaat na fi fekk jàngalekat yépp te ñu bañ a dellu parce que dina yomb lool ñu ne le 4 présenté wu nañu waaye le 5 delluwaat nañu parce que gisuñu fi ay élèves wala xoot beneen lay bu ñu lay. inspecteur d' et de la formation bu Tivaouane nee na nag lii waa maire bi def daanaka gox-goxaan yëpp ci war a roy ndaxte nag teel a joxe fourniture élèves yi am na njeexital gu mag boo xamante ne def na ko ci examen yi ñu génn fii ci Ñaaxeen. téeméeri ndongo yu présenté wu au CFEE defe naa juróom ñaa fukk juróom jàll nañ si CFEE loolu nag yombul nga am ko si benn commune vraiment bu ñu xoolee niveau départemental ñu ngi si. juróom-benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne dépassé na niveau départemental de presque de 10 points donc loolu dañ koy rafetlu di wax loolu liggéeyu conseil municipal la à sa tête la maire. inspecteur de l' éducation et de la formation bu Tivaouane nee na nag balaa ñeenti fan ci weer wi daanaka dina indi ay jàngalekat yu mat fii ci ñaaxeen nekk ci département bu Tivaouane ngir ñu gën a wéyal njàng mi ndax ñaaxeen di wéyal di am ay résultat yu baax. ministre de l' intérieur moom euh, démb doon na gën a miineel ak direction yi nga xamante ni moom la yilifa Aly nguy Ndiaye euh, xëy kon euh, wisite leen àdduna fay it ci waxtaan woo xamante ni war na ko nguur gi war na ko sumb jëmale ci opposition bi ak ñenn ñi ni seenum xel dafa tey daal ci ministre bi li mu fare ak APR yor wàllug élection yi mbirum carte it gis na ni ay jéego am na ca Cheikh Tidiane Dione moo fa woon dialogue bu dëggu te wér lu ni mel sulliwaat nañ ko bi nga xamante ne kii di Aly Ngouille Ndiaye moom mu ngi doon def visite de contact ak yenn ci direction yi nekk ci biir ministère de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom fas yéene daal di dalal classe politique bi yëpp. ah yaakaar naa ne du bañ parce que de toute façon ñun lancé nañ appel dégg nañ également réaction opposition yi mais euh, bu ñu leen invité am naa yaakaar ne danañ ñëw. ministre de l' moom mu ngi tontu ay détracteur am yi naan ki war a nekk ci bopp ministère boobu dafa war a nekk kenn koo xamante ni dafa leer. bëggoon waaye amagul. lu ko lu parce que kii décidé fi mu toll nii mooy président de la république jàpp na ne ministre de l' na ko dégg quelqu'un qui n' est peut être pas politiquement neutre mais mën na organiser élection parce que Sénégal weesu nañu fu ñuy organiser élection di ko sàcc Sénégal amatul loolu amatul fen mais nee na ñoom bëgguñu koo xam ne loo xam responsable politique lay doon. ku nekk rek ça dépend rek niveau d' implication tout simplement dama Sénégal organiser nañu fi euh, dal di jàll am na plusieurs alternances dans pays. ministre bu bees bu intérieur bi moom di rafet lu liggéey bi nga xam ne jot nañ koo def rawatina ci wàllum defar li di carte biométrique yi mu gis ne ay jéego yu mag lañ ci def loolu moom moo sabab lii. 6 millions 200 mille inscrits donc booy wax échec déjà jàpp naa ne chiffre boobu wanewul échec. presque 4 millions nañ kon jàpp naa ne boo xoolee chiffres yi objectif bi atteindre nañ. objectif mooy la ñu fixé woon au départ ndax bi ñëwee ci ca pandaw gi jot nañ ko moo nañ ko peut-être boo ne mënoon nañu gën a weesu fi ñu toll oui mais l'objectif est atteint. Aly Ngouille Ndiaye ni ki tey moom mu ngi doon def prise de contact bu njëkk ak direction yu nekk ci biir département am loolu nag li ko sabab bokk na ci saafonte ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel bi ngir ab collaboration boo xamante ne du am benn jiixi jaaxal. wérgu yaram ak euh, jàngoroy cancer weer wii la jagleel euh, xeex bi euh, plaidoyer tukkee ci ligue sénégalaise contre le cancer bokk na ci li ñu bëgg ñu jël lii di couverture maladie universelle kon mu dugal ko ci li nga xamante ni dana daal di gën a jàpp ci pajum cancer moo taxaw kon malade yi subventionné lii di garab yi bu boobaa dana jombal lu bari ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dund ak feebar bi ndax coono dëgg la ñu nekkee Fatou Kine Dem ñu bari ci ñoom dañuy jaaxle dootuñu xam fu ñu jëm di toltolaan bu ñu leen waxee seen jàngoro ñi amee cancer sonn lool la lu aju ci paj mi itam dara yombul la. chimiothérapie bi bien wàññi nañ ko ba tey jafeñ na parce que fu daan jar six cent euh, six léegi deux millions nga faju mais ba tey ku néew doole doo am loo fajoo ngay wër. fu ne di wër ci sa mbokk yi nga jaay sa bijou yenn saa yi soo tasee góor gu am yërmande mu jaay kër gi mu am wala jaay otoom bu mu am pour jàppale la. chimiothérapie ak njeexitalam ñu bari ci soxna yi mënuñoo dékku coppite yi. jigéen karaw la fonk ak we sa euh, karaw euh, daanu sa we yu ñuul sa yaram euh, sa temps bi soppeeku xam nga yooyu yëpp ay traumatisme ngay xalaat ndax dinaa dund wala du ma dund. fegu nag di lu am solo ngir wàññ li mukk ñi amee jàngoroy cancer naka noonu it ñuy sàkku eh, ci kilifa yi mu yombal paj mi jaarale ko ci couverture maladie universelle. ku yeewul naka ngay mun a saytoo sa bopp ñu yee la ci feebaru cancer yee la ci liy joxe cancer. des cancer wel foog nga def mammographie. di ñaan nag autorité yu dégluñu que CMU. jël euh, la couverture maladie universelle s'engage à prendre les malades qui sont atteints de cancer parce que loolu dina leen solo si tamit mooy fexe rek bayaatal yaatal jumtukaay yi tabax yeneeni centre ndax fii ci Sénégal ba nëgë benn institut képp moo fi am ci wàllu cancer. reportage Fatou Kiné Deme Mawo Mbaye ndaw ña nekkee ca Tivaouane Ndiacksao ñoom terrain municipal la ñuy laaj maire bu commune ba nag nee na euh, dana taxaw layal leen ba ñu jot ci lu ni mel espace boo xamante ni nag euh, mën nañ faa tabax dara nekk na daal lu jafe euh, ca diwaan ba ci cérémonie bu ñu doon joxe ay subvention la ñu xamle lu ni mel Salis Sow Asmalik Diop. xeetu tàggat yaram bu nekk jot na wàllam ci nag wi. juróomi millions yi dañ koo saam bépp association sportive wala ki yëngatu ci wàllum aada ak cosaan te nekk ci diwaanu jàmm gën jël ca la nga moom lii la ñuy woowee subvention di ndimbal luy jóge ci maire bi dal ci ñoom waaye lii leen maire bi da cee profito xamal askan wi ne mu ngi leen di xeexal di leen utal lu ñuy woowee terrain municipal ndaxte bërëb bi amul fenn foo xamante ni mën nañ faa tàggatoo yaram. loolu mooy suñu kii bi gën jëkk sax. parce que ñun mënu suñoo am benn espace boo xam ne bi xale yi am nañu fu ñuy def seen épanouissement donc buñ toogee te ba terrain Kancaaro bi nekk nii mu yaatu lool mu gën ñu jege balaa kenn di seddu ñu seddu ñu wax dëgg la loolu mooy sama priorité foofu ci assemblée nationale il ñu am suñu terrain municipal. jafe-jafe bi nag mooy ne mairie bi amul espace ni ni ko maire leeralee loolu tax ba dirigeant ASC yi fi nekk di woowee seen bopp ay ASC troisième génération ñu ngay fëgg ci buntu yeneen communes yi leen wër. ngir ñu fat leen ndax ñu mën fa am stade. am nañ jafe-jafe boobu comme ni ko département bi amee comme ni ko Sénégal amee mais ñun au niveau de notre commune yàlla dafa def aussi amuñ fi espace bu bari boo xamante ne mën nañ fa am terrain defe naa ne joytu nañ ko au niveau départemental tey yàlla ñëw na. pourquoi yàlla ñëw na tey député la mën nañu waxal sa assemblée nationale te looloo taxoon ñun ñu xar suñu tànk tubéy pour mu taxaw mën ñu représenté te wax nañ ko doléance yooyu dina ko yóbbu incha allah fu mu ko war a yóbbu parce que bëgg nañ ñun ñu am suñu espace suñu stade surtout ci camp bi wax naa ko espace bu bëree nga fa ñu ngi dagg-daggee. fii la nag ñuy di loolu am waa mairie nee ñu ñu ngi xaar ñu nga xamante ni ñooy tàggatu yaram fii ci li ñuy woowee terrain de l'engagement citoyen maanaam bañ a yem ci football bi rek ñoom waa nawetaan waaye dugal seenu bopp ci luy sukkali gox bi bile. Salif Sow daal ci yéen kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf ci ràpp ak ŋàpp ci la Sénégal toll école bu ubbi na ŋàpp bopp borom kër yi tëju ràpp bi leen vox populi ab gëstu la journal bi xëy def ci ubbi teg l'école yeeg dépense yi mu war a àndal ba togg fitna parents d'élèves yi mu di inscription yi di fourniture yi ba ci yére yi élèves yi war a sol ngir jàngi dara ci yombul vox nañu jaaykat yi sax nangu nañu gis suñuy client dégguñu ko jamono ji donte juróomi fan moo des ci ubbi teg l'école yi école yafu selim ba léegi pënd bi wuréegul yër leen xët dafa tàkk buusewul maître demul céng dikkul mbay laar li xew yéen kaay bi nañu moo di waay Yafu Selim SA yi yore école Yafu Selim yi ñoo ne waxi administration provisoire bi état bu Sénégal di wax jaare ko ci ministre éducation nationale loolee duñu ko dégg bu leen ko kenn wax tëj ci école bi ba mu mokk rumbax ñu tëj ko dem seen yoon moo leen gënal ñu leen foo indil ab administration provisoire ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye nii ci xët mu njëkk kaay bi amul dara luy firndeel ne école Yafu Selim yi war nañoo mën a jëli élève di leen jàngal ndax ku ne xam na ne ab ONG bala muy def ay activité day am agrément ONG Baskens Égypte mi yore école Yafou Selim yi état bu Sénégal dafa nangoon ab agrément ci jamono jën doon jéemub coup d'état ci réewum Turquie te ñu ko ci doon tudd boobu ba léegi ñu yore Yafou Selim amuñu agrément ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ne ñu école bu amuti kayit nu mu mën a jàngale ñi naan njiitu réewum Turquie di Erdogan moo tëj lu école Yafou Selim yi Aly Ngouille Ndiaye ne loolee ku ko wax xamoo Sénégal réew la moom boppam kenn du ko wat di ko jëmee feneen libération nañu en tout cas xalaat bi Sénégal nasoon ngir sauver situation bi ci Yafou Selim mu di administration provisoire kilifa yu yàfu selim ya xotti nañu proposition ba nee nañu bëgguñu ko la Sénégal nañu du ci dal loolee la ñu wax ministre éducation mu di Serigne Mbaye Thiam Assane Samb jël xalimam ci réew mi quotidien xëy ab taxaw seetlu ci biccoog mbaalaw gi am ci école yàfu selim yi dem sax bay laaj ci réewum turki gi moom école yàfu selim yi ban dayoo la am ci Sénégal ana lu muy peese ci réew mi les ko nañu Serigne Mbaye Thiam débuté société yàfu selim yi nee nañu xel xalaatul ñu jël ñu moom di ko dénk administration provisoire anki dina kay nañu yamuñu ca nee nañu it solution bi état bu Sénégal teg ay caaxaan la li sore ak caaxaan moo di xalifa Sall ma nekk ca kaso ba anki dina kay nañu ministre de la justice bu bees bi Ismaïla Madior Fall wax na ci ay mbiram nee na meeru Ndakaaru bi di Khalifa Ababacar Sall citoyen la ne yeneen citoyen sénégalais nit ñi sàmmee seen àq ak seen yelleef ba xat du ci damm noonee la ñuy sàmmee droit yu Khalifa Sall yi la Sénégal nañu ministre de la justice garde des sceaux di Ismaïla Madior Fall mi ngi dalal keneen ku wax lu dalum xel moo di ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye Quotidien nañu lu jëm ci dialogue mu di waxtaan bi ñuy séentu ci diggante pouvoir beeg opposition bi Aly Ngouille Ndiaye nee na noppi na ngir recevoir ñaari téeméeri parti politique ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn yi am ci réew mi réew mi Quotidien nañu enfin ndax yàlla dialogue bi ñuy wax ci diggante pouvoir beeg opposition bi mën a am journal L'Évidence nañu Aly Ngouille Ndiaye mi ñu dégg démb ba mu wax ci rajo Futur Média doxiinu paaka ñaari boor la yor dafay neexal ak di xuppe nee na opposition bi bu dee ñu audité fichier électoral bi la ñu bëgg ñoo ko tere neex ci ñoom la des te looleet lu jaadu la ndax bu ñu ko defee moytu rëq-rëq yi mën a am ci élection waaye nag am maa di taxaw naan dañoo war a wut ministre intérieur bu farul fenn maire Linguère bi di Aly Ngouille Ndiaye ne loolee yàqi wax la du ma ci wax ne président Macky Sall mooy tànn ki muy dénk ministère intérieur te man la tànn dénk ma ko moom mi dénkaate di président Macky Sall li ko askan wi dénk mu di palais de la république dëkkatu fa Les Échos moo ko bind bil yéenekaay bi président Macky Sall ak waa këram mu di première dame Marième Faye Sall ak gone yee jóge nañu palais ba déménagé nañu dem dëkki ci seen yuuxu yéenekaay bi nañu am na ñu leen ne dañoo nekkul à l'aise ca palais ba waaye am na ñeneen ñu leen ne dafa am ay liggéey mu di travaux yu ñuy def ca palais ba jéego palais ba di première dame bu Sénégal Marième fay Sall moo nekk ci xët mu njëkku direct info mu nga fa dóor grand boubam bu yanj tàggalu lu rëy gàddub saagam boole kook di wogosu direct info nañu lu jëm ci mbiri insuffisance rénale mu di feebaru roño ak hôpital yi nekk ci jafe-jafe première dame di Marième Faye Sall décanté na situation bi juróom fukki million la joxe ngir ñu jàppale ci malade yi bersi bu ren bi am na ay gan guitaarkat yi mu di Jimi Mbaye ak Habib Faye ñooy invité d'honneur yu Youssou Ndour ca Bercy ba li ko def nag nee nañu loxo Mbaye Dièye Faye génnu ci Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy euh, gërëm bu baax jaajëfal leen bu weer yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 20h ci yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendu jàmm ak programme TFM ba ca kanam tuuti.